Alphie Cuisine nuy naa leen sama gars yi euh, bàyyi yéen a ci jàmb ndokkee leen ci koor bu sell bi ñu nekk di ñaan suñu borom nangul ñu suñu koor nangul ñu lépp luñ ko ñaan léegi euh, ni ma ko waxee woon wax ju bëri wax ju tu tu <laughs> léegi <laughs> comme ni ma ko waxee waxee woon wax ji day day néew waaw recettes yi bëri sama gars yi tey nag Délice Mag la ñuy àndal ci recette bi damay defar ay crêpes jambon fromage ay crêpes yu ñu farcir euh, jambon fromage dina am yu am nen defar naa ko ba pare sax ndax tey damay nuyoo ba pare rek daal di tëj comme ni ma koy defee saa su nekk sama gars yi comme ni ma koy saa su nekk sama yi defar nañu ay crêpes defar naa ay crêpes yu am maanaa defar naa ay crêpes yu am jom léegi nag bala ngeen koy seetaan dama leen di invité comme ni ñu koy defee chaque fois ngeen dem abonné wu ci euh, chaîne de cuisine bu Délices Mag xam ngeen ni Délices Max chaîne de cuisine la ci YouTube ngeen fa am fa ay ndogu yu am maanaa ba pare am possibilité euh, gagné fa ay plateau salé ak ay mixeur Délices mag nag dafay euh, def diffusion les lundi mercredi ak vendredi ngeen mën a am ay ndogu yu am maanaa ay ndogu yu amul fenn bu ngeen paree fii ci Alphie Cuisine rek daw leen ci Délices mag taaxirlu recette yi euh, abonné wu like et puis partagé yi nañ fa tase nañu tase ci commentaire yi maa ngi leen di xaar ci commentaire yu recette yu délice bi ay ca sama gars yi yu saf sap crêpe yoo xamante ne am na farin de sarrasin am na nen ci biir ak yeneen bagage yoo xamante ne faw nga dugg ci biir waaye na la fekk nag nga like abonné wu et puis partagé yi euh, su fekkee euh, am nga envie bi aywa ma bàyyi leen ngeen seetaan seen vidéo tey ndogu express lay comme ni ma ko waxee café ga tàng na maa teg na le was ba waaw am na meew am na kénkeliba lu waay bëgg rek mi ngi ci Alphie Cuisine donc tey ay crêpes euh, salées la ñuy defar. jambon fromage bu am nen am farine de sarrasin euh, mu nekk recette u euh, Délices waa léegi champignon yi comme ni ma waxoon champignon de de Paris bu ñu daggat rek sotti ko ci poêle bi préparatifs yi yëpp préparation yëpp mën nañ ko def à l'avance pour gagner du temps champignon yi bu ñu ko toggee ba mu ñor assaisonné ko bàyyi ko ci frigo bi du def dara waaw bu ñu ko gisee ci commerce bi jënd ci tamit. waaw dafay dafay tax ñu mën a gagner di temps rek waaw yooyu yëpp waxoon naa ko voilà sauce béchamel tamit classique la sauce béchamel ci weeru koor bi mën nañ ciy defar moom tam denc ko boo ko soxlawee ça veut dire moment bi nga koy utiliser da koy defaat ci ci casserole bi dolli ci tuuti meew donc nga amaat sauce béchamel normal parce que soo ko dencee dafay figé day wow waa léegi sos béchamel bi pare na li ciy des rek mooy ñu assaisonné ko man damay def euh, ciboulette li ciboulette séchée la wala persil wala coriandre yow yaay xool lu la neex dama koy def ci pâte crêpe bi def ko ci sauce béchamel bi donc def poobar def xorom def noix de muscade voilà classique yi nga xamante ni dañ koy faral di def ci sauce béchamel léegi euh, pour gagner tamit du temps par rapport ak euh, crêpe farcie yi nga xam ne jambon Euh, jambon champignon laa wax jambon yi dama ko daggat euh, jambon de dinde fumé jambon de poulet euh, voilà jambon séché mën nga jël bula neex donc comme champignon yi tàng na te jambon bi ñor na ba pare donc damay jël jaxase ko li ma doon wax léegi rek jot amul Euh, mélange bi ça veut dire préparatif bi mën nañ ko def def ko ci ay pot def ko ci frigo bi voilà bu la am boo amee en envie defar sa ay crêpes salées euh, defar sa ay pizza voilà da ngay jël mélange bi rek daal di wis xam nga loolu gain de temps la waaw daf ñuy permettre ñu gagner temps et jàll ci leneen waaw genre astuce yi nii daf siy baax. mi neex ba ngeen fàtte Délices Mac waaw Délices li ma koy wax tout le temps chaîne de cuisine la boo xamante ne mi ngi ci YouTube bi euh, bu ngeen paree fii nii ci Alphie Cuisine daw leen Délices Mac dafay def ay ndog yu am solo. waaw idée de recette yi euh, bañ a manqué su ko defee ngeen dem euh, xool Délices Mag li mu dugal euh, partager like fekk Délices Mag ci YouTube bi wala ngeen fekk ko ci Facebook bi. jigéen ñi aywa léegi sauce béchamel bi pare na champignon jambon champignon bi tamit pare na. waaw léegi pâte crêpe bi man damay boole farine sarrasin damay def tuuti farine sarrasin daal di def farine blanche farine a ngi waaj manqué nag waajal leen seen bopp nañ dellu ci dugub bi waaw nañu dellu ci dugub suñu cosaan. ok lu toll ci 200 grammes ñaari nen euh, xorom voilà dañuy xorom comme ça pat bi bañ a lewet man damay def euh, euh, herbe aromatique voilà tey kii laa am ciboulette séchée mais damay faral di def herbe de province ci sama pâte pâte salée yi nga xamante ne moom laay defaree samay crêpes dóoral léegi tey man jambon fromage tey moo nekk sama xel. j'espère que yéen tamit dina nekk seen xel pour ngeen mën ko reprendre ak meew waaw loolu laay soxla pour sama pâte crêpe léegi su ma defee farine bi def ciboulette bi euh, ak xorom bi yëngal mën naa ci laal tuuti poobar parce que comme crêpe sale la voilà personnaliser farine bi euh, pâte bi 500 millilitres mooy genn waa litre meew defar sunu pâte voilà meew bi lañuy sotti ci digg bi et puis par tuuti di yëngal pour mën a pour bañ a am ay donc très facile pâtu crêpe tamit mi ngi ci vidéo yi voilà sama gars voilà sama gars yi mi ngook léegi li ñuy soxla yëpp préparé nañ ko defar nañu sunu pâtu crêpe mu ngi nii toog euh, mélanger champignon bi ak euh, jambon bi sauce béchamel bi lii fromage la damaa sond ci emmental râpé bi donc dama fi am tey mozzarella euh, dama ko fejetoon moom tamit dama ko siy def donc crêpe yi Euh, boo amee poêle baax na boo amee appareil pour euh, lakk crêpe yi tamit baax na waaw léegi nag euh, lii dañ koy defar bàyyi ko bu ñu nee yëf yi des na ay une heure de temps su ko defee ñu daal di saaf lakk crêpe yi farcir ko lekk ko ci moment bi ñu tàngee boo amul jot tamit comme man defar ko moment bi ñuy ndogu ñu tàngal ko. toog lu yàgg duñ ko lekk da nga koy retrouver ci crêpe bi donc yooyu tamit dafa am solo voilà. nga xamante ni énergie bi énergie bi ñu amul woon ci journée bi fin de journée bi dañ koy am voilà pour mën a reprendre euh, koor gi le lendemain incha allah yooyu yëpp def siy baax. voilà ñaari façon rek lakk ko ci ci appareil crêpe bi rek wala nga def ko ci sa poêle beurre bi dañ koy seeyal voilà def ko ci mélange bi parce que man yëpp laay lakk waaw def ko ci patu crêpe bi. voilà su fekkee nag da ngay denc sa patu crêpe. da ngay bër étape par étape ok voilà soo ko crêpé ci pool bi tam day dem boo amee appareil tamit day gën a ti rek farine sarrasin bi nag moom dafa neex ci crêpe pare day gën a croustillant nga am ñaari type farine ci benn crêpe farine sarrasin laa ci def boo ko amul farine normale bi rek farine de blé voilà normal bi mu ngoog léegi nag mën nañu commencer euh, garnir plus ñuy defar plus ñuy farcir voilà mi léegi su ma tourner damay wàññi le temps que may farcir sama sama crêpe donc soo wàññiwul crêpe bi dafay dafay daf lay raw. on de fromage jambon champignon voilà. laal ci fromage ah yii mooy ndog yi gars yi bëgg de lan bu léeg nga def sa pain thon waaw léeg nga def sa sa sa pain pastel <laughs> waaye léeg nga crêpe nag waaw léeg nga am envie defar crêpe voilà lem gauche voilà mi ngoog rectangulaire lu ma wax laalal benn nen nii ci digg bi yow bul déborder dugal ci biir ok comme moom saful jotul dootuñu ko sàppali laal ci tuuti xorom waaw kay léegi nag dañuy bàyyi mu jàpp voilà gis nga nen bi moom li ma ko santul rek la def moom génn na ne dem deme ne boor waaye garaawul voilà léegi yi nga xam ne nag ñoom bëgguñu def nen waa nii rek lañuy def farce bi lem ko lemu triangle waaw d'une manière triangulaire quoi voilà option yu bari am na duñu xuloo duñu xeex voilà on va faire comme ça lem ci digg bi bu ñu paree daal di jëlaat moitié bi mu ñëw fekk si bi voilà crêpe classique et bàyyi mu bàyyi mu doore bàyyi mu croustillant fa ay ndog yu am maanaa voilà Délice Mag tamit am na ay gagnant yoo xamante ni yéen ñii di seetaan Délice Mag da ngeen koy mën a am. amee ci Délice Mag ay plateau salé mi ngi leen di xaar ci ndogu Délice Mag yi ak ay mixeur donc su ngeen paree fii rek ci Alphie Cuisine daw leen Délice Mag. voilà voilà crêpe yaa ngi euh, comme ni ma ko waxee woon tey recette u Délice Mag la. waaw kañ bu ngeen paree rek euh, daal di dugg ci pa chaîne cuisine Délices bi waaw bu ko defee ngeen taaxirlu euh, diffusion yi nga xamante ne dangeen koy am lundi am ko vendredi euh, am ko mercredi voilà. léegi nag tàndarma jàngook ñu tàmbali crêpe ya pare na defar naa tuuti frites ak benn cake aux amandes pour mu accompagner ñu ci côté suukar bi voilà. cake bi nag dafa tàng moo tax dagguma ko mi ngi nii di soo a pare ay ca jaajëfal naa leen sama gars yi je vous souhaite dégustation. du lewa nee na kenn du yéen léew moom nee na naa yi wax kenn du yéen bi kon nag sama gars yi kenn du yéen <laughs>